monsieur le ministre de l'intérieur monsieur le ministre des finances monsieur le ministre du dialogue social du travail et des relations avec les institutions mesdames et messieurs les collaborateurs du ministre chers collègues honorables députés euh, monsieur le ministre au sorti des élections présidentielles de 88 L'opposant Maître Abdoulaye Wad, principal challenger du président Abdou Diouf, était emprisonné avant même la publication des listes. Nous avons ci concertation entre opposition et le pouvoir bi nous partenaires mettre en place ONEL Sénat bamu jur une code consensuel de 92 code consensuel Consensuelle, si lañu jugé. le président Ouad, bañu démé élection ci la gagné Abdou Diouf en 2000 le président Macky Sall si la gagné le président Abdoulaye Ouad en 2012 kon code bobu baxna waye bañu ba ci élection 2016 le président Macky Sall xamné né sénégalais lu surtout la France juvénile On avons modifié le ñu code consensuel de 92 pour nga si le président Wade Fallo, si le Le Mom. le code électoral nous savons que ne maîtriser maîtriser nga élection te démarche unilatérale Nous am li def opposition c'est ça l'opposition c'est ça la représentation nationale le dialogue national il y a plus de 300 partis politiques Il parti a des partis qui kon mën naa ne ci concertation nañu les vrais partis politiques monsieur le ministre si euh, on à 48 heures des élections nous ngeen une opposition le fichier électoral mais li ngeen jox opposition le numéro d'identification numéro le prénom non loolu naka lañ ci identifier un électeur électeur pour nga identifier ko il faut nga am ben identifiant soit date de naissance wala numéro de la carte d'identité wala numéro de la carte d'électeur carte d'électeur bi sax yéen a koy générer. mais numéro bi nga xamantene mom lay am fofu lañ koy ragné fa lañ koy distinguer dafa war a fichier bi mais nangoo ñu jox lolu kon monsieur le ministre may wax ne ñun au niveau du PDS ñu ngi ñaan ñu xolaat le fichier électoral te li nga xamantene ne ñu ko naan def moy les commissions techniques ça yu ñu pare waan élection dañuy convoquer corps électoral bi yépp wo Sénat wo opposition bi yépp ñu xol manquement yi am ci élection yi ñu waxtaanaat xoolaat code électoral bi indiwaat ko fi ci assemblée ñu voté ko ñu xoolaat code bi ñu lolu ñu ngi la ci ñaan pour que le plus rapidement ñu xoolaat code électoral bi ñu jëlaat yeneen disposition ku ne xam na ne élection yi jaarul yoon. Euh, monsieur le ministre ma ñëw ci parrainage bi CEDEAO waxoon na ne parrainage bi nañ ko supprimer en commission que nga ci ay commentaires mais ni ñi défé parrainage bi sax mo parce que vous jëlé procès verbal de contrôle des régulations de la grande coalition Wallu Nous déposer, déposé ba paré suñu ay parrainage dañu jël clé bi duggal ñu bind nombre de parrainages fournis 55.322, 322. cinquante 5.961. ñun jox dem un parti qui a plus de 500 électeurs électeurs 55 000 électeurs de li ci gën a doy waar mooy machine bi ngeen di contrôler mais machine boobu nous d' d'accord. mais mettre leen opposants mettre en place dispositif technique techniques? ñu élaborer ko ak yéen mais defoo leen ko da ngeen créer seen propre machine benn boîte noire bu ñëwee dugal clé machine bay rejeté non non non supposons ngeen woo opposition bi ñu xool critère d'acceptation, critère de rejet yi ñun nangu d'autant plus que CEDEAO neen nañ ko génne fi may jeexalee mooy monsieur le ministre ancien procureur spécial de la CREI àdduna loo dit que jeex tëj Karim Wad pendant trois ans et demi muñ ko génn na réew mi waaye monsieur le ministre je pense que ni tey dit war nga mun a wax fan nga jëli est-ce que récupéré nga les milliards de Singapour li ngeen ko yoon tuumaal àdduna bi yëpp Sénégal fépp ci àdduna bi xam nañ ne Karim Wade jëlul benn fiftinu Sénégal kon may wax ne monsieur le ministre du budget solution merci cher collègue la parole